Euh, man damay taxawee nële bàyyi la nga débrouillé yow xaw ma ndax tey jii voilà ñu xool tey nooy defee <laughs> aywa ñu dem. jàpp leen ci amin yaa rabbi amin amin amin rusloowu leen ma de xamoon naa ne bu ma fi duggee billaahi dara na fi génn euh, soxna si euh, ki ñu doon publicité fan te amee cancer ci ween wi moom la ñu war a opérer donc moom la ñuy maajaalal lu ci waay def rek yàllaa lay moo tax ma ànd ak télévision TFM ngir ketal soxna si waaw amin amin yaa rabbi ñaanal leen ko nag ñaanal leen ko amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin jërëjëf jërë ngeen jëf